yaw sama mbokkum jullit maa ngi lay woo ci occasion bu màgg bu rëy bii di sàkku ci yow ngalawaay bu ko rate muy weer bu màgg bu barkeel boo xam ne ñëw na pour fóot pour raxas li nga xam ne mooy jëmm yi lépp lu ciy tilim-tilim lépp lu ciy takk-takk waaye mu ñëw ngir dimbali ñu ci feebar yi nga xam ne dafa aju ci bakken yi kon di wax ne yow mi sàggan yow mi dëgguwul yow mi daan tooñ yow mi daan sosalaate yow mi ñàkk a yow mi daan wax lu la wóorul góor góorlul nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy gaaw ngir doon ñoo xam ne dañuy fóotu ci ay bàkkaar waaye dañuy defar li nga xamante ne moom mooy seeni bakken nga xam ne yenn yi dey lu ñaaw lool lay doon ci jullit bi rawatina fen yàlla nañu yàlla musal ci feebaram borom bi subhaanahu wa taala nee na yaa ayyuha alladina aamanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqin mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla mu ne na ngeen ragal yàlla te bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu dëggu ñi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu boole ci ñu dëggu ñi xam ngeen ne dëggu dafa bokk ci jukko yi nga xam ne dañu ci xàmmee nit ñu baax waaye ay fen dafa bokk ci jukko yi nga xam ne dafay ñaawal nit dañu ciy xàmmee jukko nit ki nga xamante ne dafa yor ay jukko yu bon wala dañ ciy xàmmee nit ki ci boppam su fekkente ne ab mbon dafa nekk ci moom yow sama mbokkum jullit ma lay laaj ndax dangaa nangoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy doyadi dañuy suufee dañuy manqué ormu te itam dañ leen koy xoolee ngir lan ngir ñàkk dëggu bi nga xam ne tey ñàkk nañ koo dëggu ci lépp am na ci ñoo xam ne ci seen tàmm fen tax na du ñu nekk kër goo xam ne dañu fay yendu jàmm di fa fanaan mbaa ñu fay fanaan jàmm di fa xëyee subhanallah azim tey ñaata tey ci ay waajur yu jigéen ñoo tàqalikook seeni doom kat mooy sabab ba mooy goro ba waroon a ràbb di ñaw waaye yow sa paaka rek di xotti Hmm? di ruutale rek balaa ngay am jàmm moom mooy nit ñi kii jaar fii kii jaar fële calculer woo sax sa digganteeg sa boroom calculer woo sax àqu njureel bi nga xam ne waajur bi am na ko ci doomam waaye yaa ngi calculer yow li la neex li nga li nga xam ne moom nga santiir nga di ko def ba ci kër ñi nga xam ne tey dañuy wujje ñaata tey ci ay wujju la benn wujju bi jaratul dara ta sax génn ngir deram bu ñu yàq deram bu ñaaw te boo moytuwul wallaay deful waxul waaye kenn koo xam ne ñaaw na ay jukko tilimle na ko calculewul digganteem ak boroomam ci ay àqu jàmbur ak bàyyee xel ne lépp loo xamante ni mi ngi koy def mbaa di ko wax rek am na ñaari malaaka yoo xam ne ñu ngi koy daal di bind déedéet am na ñoo xam ne duñu konte loolu ni ñuy def rek mooy topp seen bakken ci jaamu yàlla yi di leen lor am na ci ñoo xamante ne wallaay du ñuy yend foo xam ne jàmm daf koy yend ak ñoom di laaj loolu ban xeetu doyadi la ndax yow li ngay def mu doon lu bon doon jukko ju ñaaw ndax ci ngay sentiré sa bopp ndax ci ngay sentiré sa bopp ndax xam nga ne lii ngay taxawee dalay jural ab mbonte ibnu Mas'ud dafa wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dëggu dafay jural nit ki li nga xamante ne moom mooy mbaax mu ne te mbaax dafay jural nit ki li nga xamante ne moom mooy àjjana subhaanallah mbaax dafay jural nit ki li nga xamante ne moom mooy àjjana te ndekete baax boobu bokk na li koy suuxat ci nit moom mooy mu doon ku dëggu mu doon ku dëggu imaginer rek ci jox la misaal sa benn mbokk jullit am lu mu dégg ci mbokk jullitam muy ay kàddu yu ñaaw ndeysaan mu ñëw am ci yow yaakaar ne la ah man day damaa dégg nangam ak nangam ma bëggoon nga leeralal ma ko boo moytuwul sax la ngay wax dara leeru la ca waaye ci sa tàmm lu bon ci sey jukko yu ñaaw yow soo moytuwul di nga sosal kooku loo xamante ne kooku ba yowmal qiyaam sax du bëgg a daje ki nga xamante ne moom nga sosal ngir ay kàddu yu ñaaw yu taq yu tilim yu doy waar te xam ngeen ne wax bu xasee ba génn nga teg ko ci deru nit subhanallah moomatoo ko te bul xam fan lay egg bu ko defee kooku su fekkente ne ab gàtt xel dafa nekk ci moom ni muy def rekk mooy da koy daal di gëm tey ay ñaata nit ñoo jàppante réeroo am seen diggante te mësuñoo gisante lan moo leen ko yóbbee ngir kàddub jaxasekat ngir ab kat ngir ku yor ay jukko yu ñaaw ay jukko yu bon subhanallah mu jëmale ko ci mbokk jullitam kamu mu dajeel itam am gàtt xel gu toll ni lañ ko wax mu gëm ko boo moytuwul sax moom itam cib càgganteem téye na ko ci xolam jàppal ko ab eeneel mbokk jullitam ba war koo jàllale ci kaneen jafe-jafe yooyu yépp lan moo ko indi jullit bu sàggan bu feebar bu dëgguwul boo xamante ne la muy wax amu ca xam-xam te dara wóoru ko ca te borom bi subhaanahu wa taala nee na bu leen wax mukk ci loo xamante ne amoo leen ca xam-xam kon yow sama mbokkum jullit di la ñaax di ñaax sama bopp ñu doon ñoo xam ne dañuy góor góorlu bu baax ci sunuy kàddu ñu góor góorgóorlu bu baax bokk ci ñu dëgg ñu baax ni waaye bokk ci ñi nga xam ne dañoo ragal borom bi subhaanahu wa taala te bàyyee xel ne lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy jëf lépp lu ñuy jëflante am nañu ay gardien yoo xamante ne ñu ngi koy bind te duñu rate dara incha allah kon mu mel ni egsi nañ foo xamante ne dañuy yëkkati suñu jotaay di leen jox dig daje ba suba incha allah ci kàttanu raxmaan ñu continuer yéen ci li nga xam ne mooy sunu temu tey incha allah ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiqam jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.